ay baykat yu yu ñi jurle ñi ñi ñorle ba pare ak ñi jiir si ñi nga xam ne ñoo fi fal ñoom ñoo war a ñëw jii si euh, góob si li ñu fi faloon malheureusement ou heureusement fi ñun fiy fekk si ñoom ñoo war a xool ndax dañu leen di jox récolte bu baax ou pas selon li ñu fi jotoon a ji ñii fi ñëw ñu bees ñëpp dañoo ñëw di faru si donc booy faru fas naa ji foog nga fertiliser jox engrais fa mu ne engrais la ñuy joxe si nii pour xool ndax léegi bu ñu joxee engrais bu ñor bi bu bu jiwu ñoree dañuy jël yóbbu ba mu déet xaw ndax nit ñi xam nañ fu may waxee waaye tey moom c'est le bon moment de donneurs et des jàpp ne nit ñi dañoo jàpp ne bu élection di ñëw ci lañ leen war a dimbale bu élection jeexee ñu ñu ñu toroxal leen foofu lañ toll. ñi ñu dimbale si nag di leen indil ay élèves ak di saytu xale yeeg di saytu jàngu beeg di saytu wér yaram su fekkee ne xamuñu loolu xamuñ lu ñuy voté ki ñëw indil la tey rek nga mën a jox mais ki la jox tey nga lekk mu xiifal la at soo ci yeewut dootoo ma sa yeewu nous devons apprendre à voter. Mm-hmm. à choisir loolu lu bari la lu ñu war a def. pour revenir sur Guy Marius wax naa ko fii ma waxaat ko man je suis avec Guy Marius Sagna dans ses luttes bu fekkee contre démocratie la bu fekkee contre euh, euh, justice bi ni muy doxee doxee un poids deux mesures jàpp kumba am ndey kumba amul ndey te xam gis nañ ko ci bépp fànn xam nga lan laa contre li may wax sama waa diaspora bi dem ba bitim réew ànd ci ñii yàq sama réew maanaam naan sama réew nii lay mel nii lay mel ba ëllëg nga bokk ci ñu ànd ak falu réew ma bëgg a wanaan réew mi nii mooy Guy Marius Sagna ci li ñu ko waxal ci page am Facebook dafa li may wax dafa caricaturer une devise nationale maanaam mer gi mu mer xeex gu muy xeex dafa caricaturer benn euh, groupe xam nga benn corps d'élite honneur et patrie loolu devise u gendarmerie la gendarmerie nous appartient pour man Guy Marius Sagna mënoon na waxee leneen lu dul loolu mais bu dee même bu dee loolu mu def mu def ko moom Guy Marius Sagna ñu ne nañ jox exemple ci Guy Marius Sagna il y a énormément d'exemples yu nit ay nit def yoo xam ne joxoon ci woon exemple loolu mooy tax nit ñi mer mooy dañuy gis koo xam ne kii dafa bokk ci gétt gi ñu baal ma saw ci biir gétt gi ñu laal ci tëdd am ki bokk ci giir gétt gi romb gétt gi taf li ñu jàpp ko tëj comparaison boobu moom mooy tax ngay yokk ay frustration Guy Marius Sagna gis nga ko ko bàyyi woon ci lutte bi d'une façon dana saturé parce que sénégalais dañoo tàmm ci demal xeexali ma tëdd soit da nga dem ba doo dootoo mën nga toog soit da nga dem ba mu yàgg sax boobu mooy da ne ndax sénégalais jar na ma ko def Guy Marius Sagna brave a une détermination exemplaire vraiment une personne déterminée mais n'exagérons pas dans la chose publique parce que li ngay bañ bu ko def yaakaaruma ne Guy Marius Sagna bu nekkoon maire de Ziguinchor ministre de la jeunesse aujourd'hui du mën a dégg un jeunesse di caricaturer la devise de la gendarmerie xam nga on l'a comparé à euh, Euh, Bougazeli bu indexer un gendarme ne comparons pas un élément di corps Bougazeli def na Abdoul Aziz mbay su ma juumut le gendarme il a indexé une personne il n'a pas indexé dans la gendarmerie il n'a pas dit la gendarmerie dañu maa torturé même su fekkee Abdoul Aziz Mbaye fait partie du corps et que def na lu mu bokkul Bougazeli euh, kii Guy Marius Sagna li ñu koy accusé ba la ñuy wax c'est tout le corps de la gendarmerie le caricaturé suñ ci bàyyee noonu dafay mel ni keneen ki ànd ak moom ci lut bi ci lutte bi Guy Marius Sagna boo ëllëgee day caricaturer la police et avec li ñu am ci peuple boo xam ne bii ñi nga xam ne tey ñoo nekk activiste di leen tuddee ñàngam ñoom ñoo ëpp doole li ñuy mën a caricature danañ dem ba nasaxal li nga xam ne mooy sunu kenu dëkk gendarmerie police justice magistrature ay kenn la yoo xamante ni dafa am loo xam ne lii même boo ci àndut ci li muy liggéey même boo àndut ci li muy dox bul caricaturer le corps l'institution Parce que nous avons, nous avons besoin que ces institutions soient stables, mmh. que ces, ces, institutions soient crédibles, que ces institutions nous, nous parce que loolu lañ loolu lañ leen fi bàyyi suñu leen àndee di leen caricature da nga dem ba gëm ne ah ñii ñëpp dañ leen a politiser amuñu njëriñ ab gendarme arrêté la nga ne ko taxawuma ngeen xeex parce que sa xel mi ngi ci Guy Marius Sagna moom mu ngi topp ci Guy Marius Sagna n'empêche il ne faut pas prendre un Guy Marius Sagna qui a caricaturé la devise de la pour un ennemi pour un jàpp ko yóbbu ko il semblerait sax même que police ñoo ko jàpp ñoo ko yóbbu. Mm-hmm. il a caricaturé la gendarmerie il a affaire finalement il affaire avec la police si j'ai bien compris. Mm-hmm. je ne sais pas comment se la passage la passation. qu'importe infraction la euh, ñu ngi koy juger mais bu ñu juger Guy Marius Sagna l'opposant que ñi ànd ak Macky Sall nañ nangu ne il faut par force et obligation obligatoirement mu am ay nit yoo xam ne yi bu ñu doon dee bu ñu doon fanaan ci ñu koy waxee désaccord boobu nag nañ ko ëmb bu fekkee ñëpp la ñu bokk booy bokk yow opposition di xeex fexeel ba ci biir xeex bi nga protéger waale li nga xam ne mooy institution parce que ci sa loxo lay mujj bu sa yéen a eggee. Mhm. donc bul ñaan yàlla mukk nekk un mauvais un exemple demain boo xamante ni nekk nga fële keneen di def la nga doon def ndax boo ko waxee mooy la lii ci yow laa ko jànge fii la fi euh, kilifa wala kenn toog na Abdoulaye Wade waxi Abdoulaye Wade mi ngi fi woon topp fi xale yi ku leen dóor bu leen police dóoree téye leen grenade bi ngeen delloo ko ko Abdoulaye Wade dañu ko daan wax bu leen police dóoree dóor leen ko bi mu nekkee président de la république moo daan jël police bi mu jàkkaarloog ñun est-ce que c'est pas paradoxal nañu xeex nañu bañ na ñu jàpp ci démocratie mais nañ ko def de manière responsable et équilibrée quand la justice fonctionne sur deux euh, vitesses différentes oui na ñëpp jóg seen yëkkati ko te am na fii ku fi toog na j'ai fait confiance à la justice c'est parce que da am wala dangaa yaakaar ne boo demee ku fi toog na police bi yëpp baax na gendarmerie bi yëpp baax na da ragal ñu génn la bu ñu la jàppee pini la mais n'empêche policier gën a bëgg tey ku leen waxal gendarmerie ñoo gën a bëgg ku leen waxal parce que mënuñoo wax mm-hmm. policier yi a bëgg ku leen wax yàlla seet na am na ay policier ki gendarmerie toog di leen déglu bés bi ngeen waxee loo xam ne daf leen di arrangé dañu xam ne ñii dëgg la wax pax ñu baal ma ci terme lu leen di arrangé par ni mu amee ci police bi am ci journalistes yi am ci gendarmerie yi noonu la amee ay policiers yu nu politiser yu nu utiliser am journalistes yu ñuy politiser yu ñuy utiliser am sëriñ yu nuy politiser yu ñuy utiliser am yu ñuy politiser yu ñuy utiliser bul déglu nag ki lay utiliser ak ki ñuy politiser ndax njëriñu boppam la du njëriñu askan wi. am na solo j'espère qu'on libérera Guy Marius Sagna dans cette lutte. Mmh. que ëllëg buy wax institution mu garde ko je suis contre li mu bind. je ne partage pas quatre-vingt-dix pour cent de ces combats d'accord naa ci yokk nañ ceeb bi Guy Marius Sagna wàcc ñëpp dañoo war a wàcc ndax du Guy Marius Sagna añewut kër kenn donc kum toogal di la xeexal ceeb bu ñu yokk du sa du ceeb ma tax ceeb bu ñëpp a tax yokk nañ transport bi dugg ci oto yi ñëpp nañ libéré ñi nekk ci prison parce que am nañ ñu nu libéré te mérité wuñ ko am ñun ñu ko mérité joxuñ leen ko. Hmm. c'est un combat noble ñëpp. mais bu la taxee ne nag nga ne justice bi baaxut dara baaxut yi wala gendarmerie baaxuñu dara baaxu ci police baaxuñu dara baaxu ci ëllëg bés boo ko donnoo dina métti bu nit ñi defee comme yow. Mm-hmm. Yunusa. Yunusa procès bi. la faiblesse d'un État peut conduire au naufrage de toute une république toute une république. Mmh. je sur cette question dafa am benn euh, ñaan gu Seydina Alioune di ñaan saa sune di ko jëmale ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñu nottoo wax muy une lourde responsabilité yàlla nañu yàlla mu musal ci accident làmmiñ accident làmmiñ moo dal